kon hadithu saqifa mom lañuy waxtane ni saqifa nak buñ ko eh? bani sa'ida ab eh, lu melni ab tante la won bo xamni bani sa'ida ñoko defon ci wetu marché bi dëkkoon fa fofu la ndaje ni anon mom lañuy waxtane ni xam ngeen ne bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi genn aduna ci bisub altene di fukki fan ak ñaar ci rabiul awwal ci atum fukku ak ben ci gaday tolloog juróom-ñeenti fan ci weeru juin 632 ba bi mu génnee àdduna nag lansaar yi te mooy ñu dëkke woon madina madina dañoo dal di jóg di sàkku xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi mu génnee àdduna nag lansaar yi te mooy ñu dëkke woon madina madina dañoo dal di jóg di sàkku xilaafa gi jëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk muhaajiroon yi ñoom xalaatuñu woon sax ci mbirum xilaafa gi ndax lenn ci magi saxaaba yi ñoom ñi ngi ittewoo woon waajal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak denc ko mu mel ni ka ñu wax saad ibn abi ubada moom dafa amoon ak teef ci doon xalifa ñu ngi ko daan bàkkentale aba sabit moom la ba ni saada tànnoon mu doon kilifa guñ topp ci giru xasraj gépp lansaar yi dañoo daje ci saqifatu bani saida bu ñu wax saqifatu bani saida ni ma ko waxee léegi ci madina la nekk lu mel ni ab xayma la boo xam ne dañ ko daan samp di di toog banu Saayida nag ak uh, aw xeet ay ak giir lañu maanaam ab quartier la bu bokk ci lansaar yi Saad ibn Ubaada mu këram dafa nekkoon ci peggu marché bi marché bi Madina fii la saqifatu bani Saayida nekk dañoo andi Saad fekk booba dafa wér dafa sibru ngir jaayanteeg moom ñu sàkku ci moom mu def ab xutbaam mu wax doomam wala kenn ci ay doomi baayam ni ko wér a digg tax na li may wax nit ñi duñu ko mën a dégg waaye nag dangay jël samay wax di leen ko jottule xutba bi Saad di def mu ngi nii Saad daat ni yéen lansaar yi yéen day yéen jiitu ci diine ji am ngeen it ngëneel ci islaam lu leer loo xam ni benn xeetu arab amu ko Muhammad salaam sax na fukki at ak nangam ci aw nitam di leen woo ci jaamu yàlla ak bàyyi xiram yi waaye ñu néew ko gëm ñoo xam ni buñ ko bëggoon a aar it duñu ko mën a aar mënuñoo teral it diineem ñooñu mënuñu woon a défendre sax seen bopp ci tooñaange yee ñu leen di tooñ waxuma la di défendre keneen bi yàlla bëggee ci yéen ngëneel nag la leen indil teraanga ci jagleel leen xéewalu boppam wasagali leen ngeen gëm ko gëm yonentam bi wasagali leen ngeen aar yonent bi aar ay saxaabam teral ko teral diineem wasagali leen ngeen di jihaat ay noonam ngeen doon ñi gën a tar ci noonu yonent bi ba arab yi nangu mbirum yàlla ñii nangu ko ci coobarewu ñii nangu ko ci ak forcé wu ba ñu sori woon mujj nañu ñëw nangu si mbirum yonent bi ànd ko mokk تين لا يعلن نوايا لا لسوف سيان النبي صلى الله عليه وسلم سين جاسيت موتاخ عربي نانغو موكو توك يانتي يالا جالي نكو في تا نيب غرم نالين امنا ام دين غرم خولام يت سد نا تيين كون بير غنو يايو كينن كو ليين فخي بو لين سيق كان يين كو مو خطبه بو خامني سعد بن عباده بيم كو ديفه بيم جابو muhaajiroona yi dañoo jëkkanteeg ñoom xilaafa gi te gis na ni lansaar yi ñoo gën a yaay ci xilaafa gi ci muhaajiroona yi ngir sabab yooyu mu tudd te fekk ne sax muhaajiroona yi ñoom dajeeguñ woon woon tàmbali guñ tàmbali wuñ woon a waxtaan ci mbirum xilaafa gi saxale guñ woon dara dara gis nañu it ni xutba bi bi ko Saad ibnu Muaas defee lansaar yi rafetlu nañu ko rawatina nag ñi bokk ci xasraj nga xam ñooy ak jërëm ñoom ñëpp ñu wuyu ni ko sa xalaat jub na wax ji jub na lii nga gis duñu ko jéggi mbir mi yow lanu ci jiital ndax doy nga nu te it baax nga ngir jullit yëpp loolu bi mu amee lenn na ci muhaajiroon ya fa jotoon a teew daal di gis seen bopp ñoom itam ni déedéet ñun ñooy muhaajiroon yi ñooy ñi jëkk a topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñooy ay mbokkam ñoo ko gën a jege ci mbokk loolu kon nan lay mën a nekkee ngeen di ji ngeen di tànn kilifa gi war a yowutu yonent bi ci yéen di nu bàyyi léegi lan saa yi yëkkati waat seen kàddu ni kon léegi nañ jël kilifa gu bokk ci ñun yéen itam am kilifa gu bokk ci yéen ñu xaajale mbir mi léegi ñenn ñu ne eh, ka leen war a ñenn ñu ne seen kilifa lu dul lii ko nangu saa dub na ni leen jiite woon bi kàddu googu jibee leen leen ah loolu da mooy li jëkk ci ak doyee di dama ngu noonu muy bëgg xaaj mbir mi def ko ñaari mbir ci biir loolu Omar ibn Xattaab dégg li xew ca saqifatu bani saida ak discours ba ñu wax ni Saad ibn Muaz def na ko fa ak juyoo ya am ci diggante lansaar yi sos lool yi ak muhaajiroon yi fa teewoon mu daal di gaaw dem kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ci Aboubacar ni ko génnal euh, fekk si ma maa ngi lay xaar fii dama laa soxla waaye Aboubacar fekk dafa nekkoon ci ay itte mu yónni waat ndaw li ni ko nekk dama nekk ci itte Omar nii yónneewaat ni nee leen ko mënta ñàkk mu teew ndax mbir dafa xew moo xam ne mënu ko ñàkk fekke nee na bi Abubakar ñëwee mu xamal ko ko ñu ànd daal di gaaw dem ca saqifatu Bani Saa'ida booba ñu ngi ànd ak Abu Ubayda ibnul jarrah Omar bi mu ñëwee bëgg a wax Abubakar noppiloo ko ni ko defal ndànk ba mu wax ba noppi waaye bi mu wax wax na ci biirub xutbaam lépp lu Omar xalaatoon ci am xelam ngir wax ko rek wax na ni Abubakar waxaale na ko ci biir xutbaam boobu Abubakar dafa tàmbalee ab xutba xutbaam ci sant yàlla tagg ko daal di wax ni yàlla de moo yónni Muhammad mu dib yonent ci ay mbindeefam di seere xeet wi daf ko yónni it ngir ñu jaamu yàlla te wéetal te jamono booba ñi daan jaamu ay yàlla yu bari yu bokkut di waxit ne yàlla yooyu dañu leen di ràmm fa yàlla di waxit ne yàlla yooyu amal nañu leen njariñ te yooyee du woon dara lu dul aw doj wu ñu yett wala aw dénk wu ñu defar daal di jàng ayab wa yacbuduuna min dunillahi maa laa yadurruhum wala yanfacuhum wa yaquluuna haulaai shufaauna inda allah dolliwaat delluwaat jàng aaya di wax ne wa qaalu maa nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi sulfa waaye bu jëkk bi li muy wax mooy ñi ngi jaamu lu dul yàlla te loolee day du leen lor du leen jariñ waaye dañuy wax ni ñoom ñoo ñuy tënn fa yàlla beneen aaya ñaar bi wax ne ñun kat xërëm yi ñuy jaamu jaamuñu ko lu dul ngir bëgg ñu ñu ñu jegeñal nu yàlla dañoo wax ne yàlla dafa sori mu ne ak àgg nii rek kon fokk nga wut intermédiaire bu dox si dégg teg moom ñoom xërëm yi am na ñu dégge woon ni xërëm bi moo leen gën a jege yàlla dañ koy jaamu fa mu éggale leen ci yàlla waaye naka jekk seeni xol yàlla mu bind mi ndeef yëpp kawe lépp ëpp doole lépp mi ngi ci arab yi bàyyi diine seen bàyyi yewoon jafe na ci ñoom muhaajiriin yéen a ngeen ngeen di xëccoon mbir mi te mooy waa Makka ñoom la yàlla jagleel ñu jëkk koo dëggal ñoom la yàlla jagleel ñu jëkk koo gëm ñoom la yàlla jagleel it ñu nangu ko jàppale tartar yi ko ay nitam daan teg yëpp it ñoog moom a ko ànd daan ko mën weddi yi ñu ko daan weddi yëpp it ñoog yonent bi ko daan ànd te booba nit ñëpp dañoo juyee ak moom waaye loolu lépp jaaxalu leen wéetaay wañ ci wéet méttiwut ci ñoom weddi gi leen nit ñi weddi ak di leen toroxalit méttiwut ci ñoom kompaloo gañ leen kompaloo it méttiwut ci ñoom lépp nangu nañu ko muñ ngir dëggal yonante bi ak jàpp ci seenu ngëm ñooñu kon ñoo jëkk jàmm yàlla ci kaw suuf ñoom muhaajiroon yi ñoo jëkk gëm yàlla akub yonantam te muhaajiroon yi it ñooy mbokk yonante bi ñooy aw xeetam ñoo gën a yaay ci mbir mii it ci ginnaaw bu mu fi jógee ku ko xëccoo ñoom rek ab tooñkan nga yéen nag yéen lan saari seen ngeneel ci dine kenn du ko weddi seen jiitu lu ngeen lu ngeen def ci islam muy mbir mu mag a mag a mag it kenn du ko weddi yàlla moo leen tànn gërëm loo leen ngeen di way dimbale diineem ji moo leen tànn gërëm loo leen ngeen di dimbale yonente bi sallallahu alayhi yonente bi muy gàddaa it fi ngeen dëkk la yàlla def mu gàddaay jëm si fi lu ëpp ci ay soxnaam ci yéen la ñu bokk lu ëpp ci ay saxaabaam ci yéen la ñu bokk kon gannaaw bu mu muhaajiroon yi jàlle kenn amul wàccuwaay bu fi nun bu mel ni bi ngeen am yéen nun ñooy kilifa yi kon yéen yéen a sës ci nun duñ diisoo mukk bàyyi leen kenn du dogal menn mbirit te fekkewu leen ko Boubacar xutba boobu moom la xutba ca saqifatu bani saida léegi ka ñuy wax Xubaab ibnul Munzir ci lan saar yi la bokk dafa daal di jóg moom itam ñu ngi ko daan làkkantele aba amr ñu daan ko waxit zor ra yi ñu boroomam xalaat la moom ba mu jógee ana lu mu wax danee yéen lansaari téye leen seen mbir ndax nit ñi ci seeni i ëtt lañ nekk ci seeni ker lañ nekk kenn ñu wut a wut ak fii nit ñi duñ fi jógee mukk it ci lu duñ def lenn lu dul seen xalaat yeen boroomi teraanga ngeen boroomi koom ngeen am ngeen mbooloo am ngeen kaaraange am ngeen expérience yi mbiri àdduna yi yéen ñu tar ngeen ci jamonoy xeex bu dee jamonoy dimbalee ñëpp yaakaar nañ ngeen ci nit ñi lu ngeen di def na ngeen xam ne lu nekk rek moom la nit ñi di xool bu leen jooyoo nag ndax bu ngeen jooyoo jooyoo gi dana yàq seenub xalaat te dana manquil seen mbir léegi bu fekkee nanguwuñ nag lu dul lii ma wax man taam muy nan jël kilifa gu bokk ci nun tànn kilifa gu bokk ci ñun léegi lii rek maanaam Omar ibnu Xataab daal di tontu Xobbaab ibnu Munzir ni ko mukk mukk ñaari gileem kenn du leen yow ci gën a ni ko arab yi xalaatuñu fab kilifa guy wuutu yonente bi te bokkul ci xeetu yonente bi waaye ñi bokk ci xeetu yonente bi arab yi duñ leen bañ a fal def leen ay kilifa ñu wuutu yonente bi te loolu ku ko bañ ku ne rek am nañ lay wu leer wu mën a ci sa kan moo mooy xëccoog ñun kilifteefu wuutu yonente bi ñun ñooy ay mbokkam ñun ñooy ay jegeñaale kenn kenn du ci xëccoog ñun ku dul koo xam ne ab caaxaankat la wala koo xam ne fàggukatu bàkkaar la wala kuy dugal boppam ci ay danse bi Omar waxee loolu Xobbaab Ibnul Munzir daal di jóg ne yéen lan sar yi yéen téye leen seen loxo bu leen dégg waxi kii ak ñi mu àndal ndax bu ngeen ko déggee seen cër la ñuy yóbbu ci li ngeen cër bi ngeen am ci mbir mi dañu bu fekkee nag lii ngeen laaj muy kilifteef gi lànk nañu ko léegi génne leen leen suuf si ndax suuf si suuf Madina la ñun ñoo ko moom bu leen génnee fal ku neex léegi moo fi yonente bi leen wallaahi yéen a gën a ci mbir mi ku ndax ci seen seeni i jaasi ñu mokkal diine ji jëpp ci seen i jaasi la lañ mokkee waaw lii daal mooy li ma li ma li ma leen di li ma leen di wax léegi nag bu leen neexee ñu delloo ko fa nekkoon rek ñu doon ak noonu ملني حباب ابن ان عندنا فخو لو ان ديفانديكونا اي بعد ان تين تي بير ان بوبي سوني نيت لانسار يي تي بغ ني داك مو حاجوراني ني ген سوف سفر سوف مدي بو فكي نغ وي دينا فال تكو نالي نيت تي اي ري وار نانتي فك موتاخ عمر نيكو اذن يقتلك الله لي واخ دي بونكو ديفاي يالا دانا لا الك حباب تونتو غنيكو بل اياك يقتل يوم مولا يالا دي الك Abu Ubayda daal di waxaat ne yéen lansaar yi yéen yéen a jëkk a dimbalee Abu Ubayda ibnu Jarrah moo yëkkati kàddoom ne yéen lansaar yi yéen de yéen a jëkk a dimbalee yonent kon nag ginnaaw bu mu fi jógee bu leen jëkk a dina ji di ko yàq foofee bi mu waxee loolu Bachir ibnu Saad daal di jóg ibnu Saad ba ibnu Jallaas ñu daan ko dàkkante la Aban Nooman mu ne yéen lansaar yi giñ nañu ci yàlla ne ñun kenn jiitu wu ne ci ngëneel ci wàllu jihaat ak yeefar yi kenn jiitu wu ne ci diine ji te bañ koy defit bëgguñ ci woon lu dul ngërëmul yàlla ak topp yonent bi kon nag yëlluwut loolu ñu di ko ndamoo ci kaw nit ñi ak di gudd gudd lu ci seen kaw na ngeen xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci Quraysh la bokk ay waa këram ñoo ñu ci gën a yàlla wax dëgg yàlla giñ naa ci yàlla ni mbir mi kenn du ma gis ma di ko xëccoog ñoom foog ba ba ba abadan ragal leen yàlla te bu leen wuteeg ñoom bu leen xëccoog ñoom mbir mi Aboubacar ci xikamam ba mu bëggee yëf ci dakk juyoo gi bi mu bëggee mu dakk dafa daal di jog ni ñaara ngi nii ñoo xam ne ku ngeen ci jaayanteel rek baax na muy Omar ak Abu Ubayda ibnu Jarrah ku ngeen ci tànn rek na ngeen jaayanteeg moom dana baax ñoom ñaar ñooy ñu maase ni ko déedéet mbir mi kay xalaatuñu koo falu ta nga nekk ndax yaa gën ci muhaajiroon yi saalis nay yasufumaa fil xaar yaay kuutaatu yonent bi ci julli te julli mooy li gën ci jullit yi kon bi mu la ci xasee jiital rek kenn waratu laa jiitu ci mel mbir wala kenn di jiite mbir mi ngay nekk ci ginnaaw léegi ni ko acci tàllal sa loxo Omar bi mu waxee lan Omar ni tàllal sa loxo nun ñu jaayanteeg yow biñ demee ba bëgg a jaayanteeg moom ka ñuy wax Bachir ibnu Saad daal di jëkkante jaayante ak Aboubacar kon Bachir ibn Saad mooy ki jëkk jaayante bi Aws gisee li Bachir ibn Saad def ak li waa Xuraysin woote ak li waa Xasraj di sàkku ci bëgg a jiital Saad ibn Ubaada ñu daal di waxante ci seen biir ngir xam na ni kattan gu toll nii séddale ko dafay doy dal bir ca saasa it la Omar jóg ni xëy xeeta mukk ci àdduna laa yajtamiu isnaani fii xaralin ñaari biiram ci genn bu Omar daal di gaaw jaayante ak Abubakar ngir xam daraje bakar ak nangu abou Aboubacar noni la nit ñi tambalé di jaayante ak Aboubacar wet gune mbolo mbooloo dafa jóge di ñew ba yoon yi daa mujj xat Omar mo doon wax ni bima ma ba gis giirug aslama ñu ñew rek la ni kon jaxna ñun ñoy ñoy nit ñi tar eh, raj lo bu ñu doon raj rajloo dañoo mujj di xawa a dégg Saad ibn mi nga xam la fi lansaar yi indiwoon ngir jaayanteeg moom te fekk dafa feebaroon daanaka dañoo mujj di jaar ci kaw di ko ñaaj di jàll ba mujj na mënatut a jóg léegi digganteem ak Umar it ay coow am ca waaye ginnaaw bi lañ jël Saad yanu ko yóbbu ko këram bàyyi ko fa ay fan ginnaaw ba ñu yónnee ca ni ko ñëwal jaayante si ndax nit ñëpp jaayante nañ sa waa jaayante nañ mu ni man xanaa ma fett leen li ma yor ci ay bali fett ba mu tàkk de ni leen bu fekkee ni li ma yor ci bant fett joxut de ñu fettante ko ba mu jeex ngeen rey mbaam rey leen de du ma ñëw di jaante fekk xalaatuma ko sax te it bu boobaa it su sama bant fett jax it li ma yor ci jaasi dinaa leen ko dóor ba dootuma amati jaasi lu ma yor ci xeej it ma dóor leen ko ba dootuma amati ay xeej ànd ak sama waa kër nag ak ko mën nga topp sama waa kër xeex ak yéen ba amatuma pexe waaye du ma ko def jënd yëpp buñ dajale woon nag nit ñi du tax ma ñëw jaayante sa yéen léegi daal xanaa ma dem ba ci sama kanam borom ma xam lu may teg ci xisaab waaye xalaatuma ñëw loolu yi la Saad tontu ña ko doon woo bëgg mu jaayante ak Abubakar ginnaaw bu mu xamee ni jaayeen ñëpp jaayante nañ waaye nag mu mel ni gàntal googu daanaka amul benn njariñ ndax lansaar yi jëbbul nañ ba ci ni ci boppam sax jëbbul nañ wi Abubakar xamee loolu li Saad wax Omar it ni Abubakar bu ko bàyyi te jaayante suul parce que li muy def ci ko fen Bachir ibn Saad ni leen bu leen sulal seen bopp ndax xas na ba nit ba noppi te lànk na ne du jaayante si wóor na ma ne bu ngeen ko doon rey du jaayante ak yéen te du ngeen ko rey xanaa te du ngeen ko rey te reyu leen ay doom yëpp bu ngeen ko naree rey doom yëpp dinañ dee ngeen door koo ak waa këram it jaral na leen ko danañ dee ak ban kuréel nag ci ay mbokkam bàyyi leen ko yéen bàyyi ñu ngeen ko bàyyi du leen wàññi dara ndax kenn képp la bi mu waxee loolu moom Bachir ibn Sahm nag ñu jëfandikoo xalaat boobu daal ne ah kii de li mu wax dëgg la xalaat na علي بن ابي طالب مومي تام موك بنو هاشم اك الزبير واخنا نيو ني دس نيو جيروم بن وير يو خامني جايانتي وونو اك ابو بكر بني سخنا فاطمه واتي نوبلو لين دورا جايانتي ني واخني فاطمه دا فاي يوني وون ابو بكر ديكو لاج ندونوم تي يانتبي صلى الله عليه وسلم تا لم امي وون لم بايي وون تي مدينه اك ديكو لاج walam ci xumus bam jëlewon ci xaybar Abu Bakar bañ ko caa jox dara ngir dañu ko ah, yonent bi kat nee woon na lu nu fi bàyyi sarax la waaye kenn du doon ginnaaw nag loolu yonent bi wax yéen amu leen dono loolu yi ci la soxna si meree Abu Bakar waxaatut ak moom ba ne mu fi bàyyi ko Ali ibn Abi Talib it la mu jësoon mooy moo gën a yaay ci xilaafa gi ci Abu Bakar ngir moo gën a jege yonent bi loolu moo tax mu yéex a ñëw jaayante si jiite gi ñu Abu Bakar teg nañ ko ci point yu bari ndax yonente bi buñ wéradee bu mënta ñu julli si dañuy digal leen Aboubacar mu jiite nit ñi soxna ko Aboubacar day dafa doon ko woyofu xol euh, kàddoom dafa woyof bu ñëwoon di jiite nit ñi fi ñu toll nii nit ñi duñ xaw a dégg li ñuy wax ngir ay jooy yonente bi tegaat ci ni digal leen Aboubacar mu jiite nit ñi nee leen Aboubacar ne leen jiite nee na soxna si waxaat ko la mu ko waxoon yonente bi sax ci kàddu googu jiital gëm jiital Aboubacar ci julli gi nag ab junju la ci ni Aboubacar moo war a doon xalifa ci gannaaw Zubayru daal di wax ni man de sama jaasi ji duma ko dugal ci mbaram mukk te Aliyun jaayante wut Omar daal di ne jël leen jaasi ji Zubayru yor teg ko ci suuf gannaaw bi ñu ko jëlee la Omar dem ba ci ñoom ci njëkk ak teraanga mu jël leen jiital leen ñu ñëw pour jaayante si loolu kon mooy li xew ci mbirum Sayyiduna Aliyun ak lenn ci ahlul bayt بكون تيني يا خونا جاين تسي أك أبو بكر عتبة ابن أبي لهب أك خالد ابن سعيد أك مقداد ابن عمر أك سلمان الفارسي أك أبو ذر عمار ابن ياسر البراء ابن عازب أبي ابن كعب ينيب لنون تخوان عندك عليون دابني مو ورد خليفة قيل له أبو يوسف تبني أمية بكون نتي نيخ جاين تسي كون في دسنا في من تخوبا ينجني جمانون يو أجل اللين li gën a rëy ci liggéey yi Aboubacar taxawal ginnaaw bu mu doone xalifatul muslimin di ñaan yàlla mu defal nu ak diggaagu topp yàlla mu defal it ak jariñu di ñaan yàlla it Mawlaana sunu keefa ak Cheikh Salih Mbacke yàlla yàggal ko fi lool tamay ko ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.